seen revue de presse. ñu ànd ceeg El Hadj Ahmed Aidara. bismillah. Bakar yaa ngi continuer rot ba léegi ne la dee. mardi daal ba sobri dee. juróom-ñetti ak juróom-ñeenti la doomu aadama yi dee ci coronavirus ba dee ca weekend bala waaw dama ne la am na benn imam boo xam ne dee juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñetti la am laa la wax ci këram la dee ci diwaanu Thiès allahu akbar la ilaha illallah l'observateur ne Lamine Sène le wuyoo bos sobi di ne ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali dama ne la am na ci benn ndaw soo xam ne tamit dee waaw juróom benn fukki at la am soixante ans ah ca diwaanu Touba gaay la génnee adduna ginnaaw bañ ko yóbbu nag ca centre de traitement ba yéen kaa ngi ne Tambacounda ak Kaolack waaw wàlla nañ leen de ca diwaanu Tambacounda googee waaw benn waajoo xam ni kon doon liggéey ci hôpital ba dee moom la ñu wàll te kaase aslem boom nga rek gëlee ca diwaanu Kaolack waaw benn waa joo xam ne kon bi si soleil liggéey dee man ngaa jàngoro ja dee tribune rek kaa dee waaye ndaje yi nga xam ne nag maanaam ñu ngi ko daje ci buntu boulangerie yi nii ah respecté wuñu nag maanaam un ba dee ba waaw waaye masque yi tamit dee saful yàpp saful jën laa la wax moo doon mburu mi mburu mi ñuy jënd ci boulangerie mburu mi ah attention de yéen kaa lu tolloo juróom ñaar fukk laa la wax ak juróom-ñaar fukk ak benn dee ci ñoo xam ne maanaam dañ leen wàll wàll nañ leen waaw juróom-ñeent ci ay doomu aadama yoo xam ne kon ñàkk nañ seenu bakkan allahu akbar la ilaha illallah Philippe Lalliot ambassadeur de France ci Sénégal gi la ci la solo yéene kaay nee na suñu booloo dinañu am ndam dëgg la critique yéene kaay ne en tout cas week-end bi la dee mbir mi miti na lool ndaxte juróom-ñeenteelu doomu aadama dee daal di ne dee gis nga ci doonu Touba waaw ñaar fukk ak ñett ci ay doomu aadama laa lay wax ni daal di nañu am kon jàngoro jax juróom-ñeent fukk ak ñaar xamuñu kon fan lañ dëggee mbas mi la communautaire waaw fukk ak ñett yoo xam ne de juróom-ñett ca ñoom ca diwaanu Mbàkke gële la lay lay da la kaa gi ne waaye yow Marseille est ce que nag tëj looloo jaralaaj kaa importé yi nga xam ne tam maanaam ñu ngi dellu ne ci tël na nit ñi libération yi ne kaa ne lu tolloo cent vingt six cas waaw waaw ñaari doomu aadama kon ñoo dee ci week-end bi le te daaru xudoos waaw xumma mii nga xam ne kon daal dina fay faatu dee bañ koy yóbbu kër docteur looloo mi ti ñu bari juróom-ñett yoo xam ne gis nga kookee nga xam ne nag maanaam moo doon liggéey fifty six ba ca Kaolack waaw nekk ci Kër Massar gi lée la di ko fii la ko jëlee di laas Tambacounda Kaolack ak Mbour gee ah nit ñi jaxle nañu lool bopp yow ëlbatiku na laa la wax ci col général le quotidien yéene kay ne kaa importé de waaw daal dinay commencé de l'histoire nag kii de Jakarta la dugg see ci réew mi di daal te jigéen la ca caax te Guinée gi la jógee fëxa frontière yi lée ak moto ngak dara lu dul suñu frontière yi nga xam ne moo raw landi noo am wala tamit sànqal kay Sénégal nag boo sàgganee ka importé yi dee danañu fi bëri waat de mardi tali jógee na ci dëkk yi nga xam ne kon ñooñu wër les si ko yéene kaay de maître Abdoulaye Wade de waaw wax naa julit yi de avertir na julit yi de ba noppi daal dina leen woo ngir nañ ñu daal di kon xeex wàllum covid 19 bi de maître Abdoulaye Wade waaw nee na am na ñooñ ci ñun boo sàgganee rek weeru rawatina keneen de mars itali masoru service médecine ba wàlla nañ ko feebar ba ci nekk ni lu tollool juróom benn a aadama ngi ni lée ndax sa pharmacien biologiste bi wàlla na lee yéen kaa ji ne corona de duy wóor corona du wóor kat de ah, maa la ko wax rey na démb juróom ñeenteeli ni téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ci yu positif waaw fukk ak juróom benn communautaire cas importé yaa ngay dellu soit te jamono joo xam ne nag na corona waaw malay tamit ña ngay dee dee ubil évidence yéen kaay nañu corona xar corona téeméer ci jur gi a ñoo dee ca Médina Sabax maa la ko wax exclusif yéene kaa ne Samba Ndiobène Ka ministre Samba ma nga woon ca Saloum de Samba Ndiobène Ka waaw nee na nguur gi ci boppam génnee na ñetti milliards ngir gunge sàmmkat yi lee moom Samba Ndiobène Ka ministre Samba waaw nee na président Macky Sall jël na ay mesures yu am solo lool ngir xeex wàllu mbas mi lee mbas mi day Serigne Modou Kara Mbacké ci direct ñu waaw nee na yor na garab gi koy faj moom corona Serigne ak les métiers ci adduna bi yëpp mi ngi ci loxol Serigne Touba sëñ Modou Kara Mbacké yemu ca ndaka dee nag man faj naa ñaari doomu aadama yoo xam ne dañoo am sida ci ñetti fan fajaat naa ñaari doomu aadama yoo xam ne maanaam dañoo am tëleew góor dañoo tële sëñ Modou Kara Mbacké ne jarul woon nuy teg jumaa ak jàkkee jaru ko parce que bi lée léegi mu jóge fi Cheikh Omar Anne ministre waaw ci tribune yéene kaay ah nee ay année blanche ay année invalide loolee moom jarul sax xalaat buñ ko xalaat loolu xon waaw facture bii di ñëw danañu ko tàmbali ñi nga xam ne dépassé wuñu deux cent cinquante kilowatt waaw nguur ga leen fayal seen facture bi vingt quatre heures yéene kaa ne de waaw làmbatu gi bëri ci de gouvernement bi daal làmbatu dof yëngal ka ko fa ngi rek lay def ci wàllu masque yi critique yéene kaa ne waaw parce que nag ne ko defar mu jaar ci di tere yu baaxul yi waaw vingt quatre heures yéene kaa ne Assome ministre ak ministre Moustapha Diop waaw ñoo ne woon masque yi de gaay ñoo ca delluwaat ginnaaw ndànk lees ko yéene kaa ne Moustapha de waaw arrêté bi nga xam ne maanaam moom la bindoon ah ci wàllu masque yi delluwaat na ci ginnaaw de maa la ko <laughs> yow defaroo ay masque jox askan wi commandé woo ay masque jox askan wi nga leen di wutloo baax ak yu bon waaye wax leen ci pétrole bi lay parce que suul gaz du ko teree xëy